bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sala allahu alayhi wasallam subhaanaka laa cilma lana illa ma callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahuma callimna ma yanfacuna wanfacnaa bimaa callamtanaa wa zidnaa cilman asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu Rewmi FM 97.5 dellusiwaat mbokk ñuy topp ci waxtaanu fajar wi ci waxtu ngeen di ci ànd seen mbokk Ibrahima Dramé ki ñuy àndal ci wàllum xarala gi mooy suñu technicien bi di Bachirou Cissé mbokk yi ñu bokk sant yàlla buur bi tabaraka mu ñu yenkeewal ñu fekkee bés ni gannaaw bu ñu xéewalalee ñaari xéewal ya nga xamante ne duñu tay di ko fàttalanteeg mbokk yi te mooy xéewal yamu mu jagleel askanu jullit ñi waaye mu doon waxtuyu julli fajar waaye ñaareelu xéewal ba mu yenkeewal doomu aadama yi mboolem seen mooy xéewalu nelaw kon ndegem ñaari xéewal yi buur yàlla moo leen yore ba tax na mu ñuy fàttali ci alquraanul karim ci aaya ya fasante ko ci biir téere bi ndax bu ñu demee xool ca suratul ruum dinañ fa fekk buur yàlla tabaraka wa moo mu duñu wax xéewal ya nekk fa moom te mu baaxee ko doomu aadama yi ak xéewal bi nga xamante ne moom la wàcceel askanu jullit ñi ginnaaw bu ñu joxee julli waxtu yi fajar ci ginnaaw tuuti si waxtu su néew ci ginnaaw ñu dégg noddkat bi di nodd ci jàkk ja naan julli di moo gën nelaw ba ngeen nekkee waaw audience ba ngeen wara am ak seen boroom moo gën nelaw ba ngeen nekkee ba tax na nga dégg noddkat bi di wax asalaatu xayrun min an naw képp ku yàlla jàppandalal ba nga yeewu ci nelaw woowu daldi di waajalal sa bopp séq ab jéego dem wuyu woote kat be loolu mu woote xamal ne yàlla buur bi tabaraka wa xéewalal na la xéewal joo xamante ne yaa keneen ku mu xéewalalut loolu mu la xéewalal kon dang si war a sant buur bi tabaraka wa taala tax na bu ñu demee xool buur yàlla tabaraka wa taala mu ñuy wax ci suratu ruum wa min ayatihi bokkoon sama kawti fi yama yore man yàlla manaamukum nelaw ba ngeen di nelaw bi ci jamono bi nga xamante ne mooy waxtu yu guddi wan nahaar ak bokk na ci samay kawtéef ma di leen fenkloo jant bi bëccëg bi di bëccëg bi daal di ñëw installé wu seen kaw ngeen nekk fa di sàkku wërsëg yeleen yàlla tasal ci kaw suuf si moo tax moo ne wan nahaar bokk na ci kawtéef ya ma yore mooy bëccëg wabtigaaukum bokk na kawtéef ya yore gannaaw bi ma leen installé bëccëg ngeen daal di sàkku la nga xamante ne muy ngéneel ya ma tasal ci kaw suuf si ngir ngeen mën a sàkku la ngeen di dundee yàlla nee na nag li ma leen joxoñal inna fi daalika mu ngi ci li ma leen wax ni laayatin aaya ay kawteef yoo xamante ne ña ko war a mën a dund mooy li qawmin yasmaun mooy ñoo xamante ne dañuy déglu la alquran andi te dañuy nangu déglu la yonent bi andi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na yonent boobu moo ñu ne képp ku yàlla wërsëgal ba nga jeewu ci nelaw boobu la njëkk la nga war mën a wax la njëkk la nga war a wax mooy alhamdulillahi mboolem xeetu cant yi ñeel nañu yàlla buur bi nga xamante ne ahyaana moomu dundal baadama amatana gannaaw bu mu dogalee ci sama jëmm ji dee bu ndaw te wa ilayhi nusuur ci moom yàlla lañuy dellu buur bu mag bi subhaanahu wa ndax loolu la ñu wax bi léegi ci saar ba nekk ci suratul zumar buur yàlla tabaraka wa taala ñu allahu yàlla moo am kattan ak sañ-sañ ak man-man ba nga xamante ne moom la la bëgg a wax si nii moo tax mu ne allahu yatawaffal anfusa yàlla mooy buur bi nga xamante ne mooy faat mboolem bakken yi xiina mawtiha jamono bu ñuy sóobu ci dee bu ndaw te mooy nelaw wallati lam tamutu fii manaamiha bakkan joo xamante ne yàlla dogalul ci moom dee dëggintaan da koy jox nelaw bu yemamaay da koy may da koy yenkeewal da koy installel nelaw bi nga xamante ne du nelaw bu xóot nelaw bu digg doomu la nga gis ne ndekete yàlla mooy installé ku ko soob nelaw bu ngi naan sëngéem nelaw bu ngi naan jayaxu loolu kenn du ko créer sa bopp waaw yàlla mooy namm yow nga war a sëngéem yàlla mooy namm ki war a nelaw nelaw bu ngi naan jayaxu waaw am na ñoo xamante ne dañ naan man bu ma sëngéemee rek doyal naa am ñu naan la bu ma jayaxoo rek doyal naa waaw nelaw bu digg doomu boobu du nelaw bu xóot te moo gën a neex ci nelaw yi waaw nga xam ne da ngay da ngay nga gis koo xamante ne nam koy defee macha allah xamante ne yàlla muy buur waaye nga gis koo xamante ne moom buy waaj a tëdd pour nelaw soobu ci nelaw dëggintaan da koy utal yére waaw da koy utal yére yi muy sol utal ko mbàjj utal ko waaw programme waaj yi waaj a nelaw daal boo ko séenee danga naan dangay xam ne kii daal mu ngi waaj a sóobu ci nelaw dëggantaan yàlla nee na façon nelawin boobu maa koy créer ki ma soob waaw waaye nag mu ne fa yumsiku lati qada alayha al mawt jamono ya bakke ni yëpp suubu dem dugg ci dee bu ndaw boobu di nelaw bakken bi ma wërsëgal ko nelaw bu ñu naan nelaw bu digg doomu te mooy sëngéem wala jayaxu bakken ba yàlla sopp nag mu ne ma dogal ci moom dee mu dee dëggantaan bakken jooju dootul delsi waaye mu am beneen bakken bi nga xamante ne wa yursilu letti wa yursilu alayha uxra mu daal di ila ajalin musamma wa yurusulul uxra ila ajalin musamma moom yàlla mooy delloo bakken ba génn ci jëmm ba mu nekkoon mu delloo ko ba keroog la mu moom bu jotee mu daal di ko jëlee ci kaw suuf si yàlla ne nag ñetti bakken yamalaw tegtal ni yow doomu aadama bi inna fi daalika mu ngi ci li ma la joxoñ nii ayaten kawtif yoo xamante ne li xawmin yatafakkaroon ñu am xel ba ñuy xelaat la yàlla di doxalee kawtifam démb ci guddi am na ñu ñu nelewan ndoor ñooñu dañoo fanaanee di sëngim di jayaxu ñii dañoo sóobu ci nelaw dëggantaan dañoo nelaw ba waaye am na bakken yoo xamante ni yàlla da leen dañoo dellu fa moom waaye am na bakken yoo xamante ne yàlla da leen delloo ci jëmm ba ñu génnee yàlla delloo leen ci jëmm jooju ñu continuer di dund ba keroog la yàlla dexalanteeg ñoom bu jotee mu dal di leen jëlee ci kaw suuf si yàlla ne programme bi ma la joxoñal nii yow doomu aadama kaw nga fa kaw téef ma nga fa waaye ki koy xalaat mooy kan ñuy yore xel ba ñuy xalaat kaw téefu yàlla buur bi tabaraka wa mbokk yi ngeen ngi ànd ak ñun ci waxtaanu fajar bi di jaar fii ci Rewmi FM 97.5 démb bu ngeen fàttale ko ñu ngi taxawande ki yéen ci béréb bi nga xamante ne mooy fa yàlla buur bi tabaraka wa taala di baaxe doomu aadama bi ne amul benn jëf ba ngay jëf yow doomu aadama bi lu dul sa bopp la ñeel sa bopp la concerné moo xam lu baax la moo xam safaanu lu baax la ñoo ngi leen doon waxtaanal aaya yi nga xamante ne képp ku jëf lu baax sa bopp waaye képp ku def safaan ba tamit ci bopp kon nit ñi ak lu ñu munti mel ñu bañ laa épargnel ñu bañ laa faggul walla ñu bañ laa sàkkul lu baax waaye yow nanga ko sàkkul sa bopp yow nanga ko dajaleel sa bopp nanga ko épargnel sa bopp loolu mooy li am solo waaw nit ñi seen temps ak seen waxtu mayatu leen ñuy épargnel nit ñi lu baax seen temps ak seen waxtu mayatu leen ñuy dajale nit ki lu baax kon ndegem nit ñi amuñu jotu keneen ku dul seen bopp kon yow jullit bi ngalawaay nanga doon kuy géem a épargnel sa bopp loo xamante ne bés boo jógee ko ci dund bi dinga fekk loolu nga épargnel sa bopp mu nekk lalay lay xaar ci sa tiraay keroog bés pénc bu la nit ñi dajale lu njëriñ feeka yow dajaleel nga sa bopp la lay moo tax ba léegi ñu fas yéene continuer ki yéen ci aaya bi nga xamante ne fala ñu yemoon ca suratul fusilat buur yàlla tabaraka wa di wax yonentu ci téere bi ci aaya bi ne man amila saalihan képp ku jëf lu baax fali nafsihi boppam la ko defal waman asaa képp ku ñaawal képp ku def lu ñaaw tamit fa alayha boppam la ñeel kooku boppam la épargnel lu ñaaw loolu waaye nag lu fi nekk yow yonentu bi wama rabbuka déet sa borom mu di aji tooñ bi zallaamin tooñ ba muy tooñ lil abid jëmale ko ci jaamaami sa borom bi de du yàlla bay tooñ jaamaami du buur bay tooñ jëmale ko ci jaamaami kon nga déggee ci maana aaya bi yàlla du buur buy tooñ jaamam xanaa jaam kañ mooy tooñ boppam ci jëf ju ñaaw waaw kon bu fekkente ne nit ñi amuñu luñ la dajaleel ci lu baax yow na nga dajaleel sa bopp lu baax démb ci kattanu yàlla aaya bi la ñuy yemandi te ñu nar aaya ba nekk ci suratul jaasiyaat buur yàlla tabaraka wa taala di baaxe yenent bi sallallahu alayhi wa ne ko man amila saalihan fali nafsihi bi léegi képp ku def lu baax boppam la ko defal wa man asaa fa alayha képp ku def lu ñaaw boppam la ko defal waaye li fi wér te wóor xam ne thumma ila rabbikum gannaaw dund bi ci seen boroom turja'un ci moom ngeen di dellu kon képp ku fi nekk di bañ a def lu baax ngay def lu ñaaw nga defe ne boo fi jógee ko ci keneen ngay dellu walla feneen ngay dellu ndax nga sa bopp ndax yàlla leeralal na la ko ci aaya bi nee na la summa ila rabbikum turja'un gannaaw bu dund jeexee ci seen boroom sa borom bi la bind indi la fi mu teg la fi comme missionnaire nga jël mission bi salfaañe ko ci topp sa banneexu bakken di def loo xamante ne yàlla gërëmu ko yonent bi jàngalewu ko yàlla ne xamal ne bés boo fi jógee ko ci man yàlla ngay delsi ndax maala la andi fi maa la fi andi dundu àddina bu la jayee seytaane mal mëne la di la wommat di la yóbbu ci kuréelam di la géem xoy ay objet àddina ba tax na la la yàlla sant ne boo fi defee lu baax sa bopp nga ko defal waaye nag la nga nekkee ci lu bon lu ñaaw sa bopp nga ko épargnel xamal ne ha boo fi jógee ko dund boobu noonu du ah at min si xaw nuñ koy tudde du loolu moo la fay jëlee de déedéet kon gaawal tuub nga géem a épargnel sa bopp la nga xamante ne mooy lu baax ndax yàlla ne man amila saalihan képp ku def lu baax fali nafsihi boppam la ko defal wa man asa ak képp ku ñaawal képp ku def lu ñaaw fa alayha sa bopp nga ko defal waaye nag lu wérte wóor moom lu baax loolu gaay def gaay baax ñi lu baax loolu ñuy def nañu xam ne summa ila rabbikum turjaun ci seen borom ngeen di dellu mu fay leen lu baax loolu ngeen nekkee di def waaye woo man asaa fa alayha képp ku képp ku def képp ku fi nekk dëkkee def lu ñaaw thumma ila rabbikum turjaun na kooku tamit xam ne ha bu dund bi jeexee bu dee ñëwee de ci yàlla mi ñu fi andi ci moom la ñuy dellu mu daal du ñu fay lu ñaaw loolu nga nekk di ko def yow mi nekkee fii di jëf-jëf ju ñaaw di tuumal nit ñi di xas gor ñi di tuumal gor ñi di wax ci deru nit ñi lu ñaaw loo xamante ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko te jamono ji ñu toll nag téléphone ba ñu yor ah smartphone ya ñu yor internet bay lëmbey àddina si yow defoo ci dara lay njëriñ askan bi defuloo fa dara lalay njëriñ loo xamante ne war nga kaa war a mën a épargner sa bopp ëllëg bés pénc buñ la ko feyee nga ne ak neexoon sama dund bi yépp ma jël internet bi di ko def lay njëriñ nit ñi su ko defee may épargner sama bopp yiw waaye yàlla wàccil ñu internet ngir ñu war see war a mën a defaroo suñu dundin nga jël internet bi di ko fàggu di ko def fàggu teefu ñaaw teef léegi bés pénc buñ na ko fayee dinga rëccu di nga am lala la mit di nga mere la deful dara moo ne internet boobu lu tee nga jël ko jëfe ko jëfukaay lu baax moo ne internet woowu lu tee nga jël ko di ko utee yiw nga di ko épargnel sa bopp di si jàngal nit ñi di si laayee biir nit ñi di wax ci internet bi loo xamante ni day njëriñ nit ñi ngay digle lu baax di tere lu ñaaw comme gaañu baax ni nuñ koy defee nga di si tegtal lépp loo xamante ni ki ko xool dina am la kay njëriñ nga di si wax loo xamante ni képp ku la déglu dina am la kay njëriñ su ko defee ñu épargnel la loolu nit ñi di bénéficier wu ci loolu ngay jëfandikoo internet ñu di ko épargnel ci say jëf ju baax ñu di la ko dencal ci say jëf ju baax waaye yow nga jël xarala bi jumtuwaayu xarala bi nga jël ko defee ko fagguteefu ñaawteef nga di ko faggoo ñaawteef di ko épargnel sa bopp nga defe ne yaa fi nekk di saaga nit ñi di wax ci nit ñi lu ñaaw di wax ci nit ñi lu la wóorul di ko def jëfandikukaayu xuloo moo ne jar na ko déedéet ba tax na looloo tax buur yàlla ne képp ku fi def lu baax boppam la ko defal waaye na xam ne summa ila rabbikum turjaun jëf ju baax jooju du naax saay de boo delloo fa sa borom ba la ko feere nga kontaan nga xam ne jëf ju baax moo am solo jëf ju baax moo jara def waaye nag waman asaa fa alayha nee na képp ku def lu ñaaw fii lu ñaaw loolu ah summa ila rabbikum turjaun boo fi jógee ko ci sa borom bi ngay dellu de te boo fa delloo ni fi nekkee woon la lay fay waaw su ko defee ñu bàyyi xel loolu noonu la ñuy soobu dem xool ci beneen saar ba nekk ci alquran al karim buur yàlla di ñu won njëriñu amalu saalix waaw ndax jëf ju baax ba jëf yàlla nee na sa bopp nga ko defar waaye jëf ju baax ci boppam njëriñ bu mu am nañ leen bokk déglu la suñu borom buur bi tabaraka wa taala baaxee yonent bi ci suñu téere bu mag ba ñu yore di alquraanul karim ca suratul nahl buur yàlla neena man amila saalihan min dakarin aw unsa wa huwa muminun fala nuxiyannahu xayaatan tayibatan wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yacmaluun mbokk yi yal na jàmme yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot buur yàlla tabaraka moo ngi nii du ñu baaxee njëriñ ak importance ba amalu saalix lamboo bu ñu amalu saalix nag muy jëf ju baax ba yàlla reconnaître mooy jëf ju baax ba yonent bi jàngale bay mu di jëf ju baax ba nga xamante ni képp ku koy jëf condition bi mooy nga nekk jullit moo tax yàlla nañu ci aaya bi man amila képp ku jëf saalihan lu baax min dakarin moo xam góor la aw unsa wala moo xam jigéen la wa huwa fekk moom muminun ba doon jëf-jëf ju baax ji dadi aji gëm yàlla yàlla nee na fala nuxiyannahu kooku la ñuy dundal xayaatan dund joo xamante ne tayyibatan bu teyte dagan la waaye nag ëllëg bis penc bu ma dajeek moom wala najziyannahum ñooñu ñooy ñoo xamante ne dinañ leen fay ajrohum seen peyor bi nga xamante ne mooy peyor bi ahsani ma kaanu yaamaluun peyor bañ leen di fay mooy peyor ba nga xamante ni muy ëpp te mooy gën a rafet lañu nekkoon di jëf kon mbokk yi ñu déggee ci aaya bi buur yàlla nee na képp ku def lu baax moo xam góor la waaw góor yàlla yi yàlla ne seen kuréel woowu képp ku ci def lu baax góoru yàlla yi yàlla nee na seen kuréelu góor yàlla woowu képp ku ci def lu baax mooy boroom alal ba jël alalam dugal ko fii maa yuhibbuhu llah wa yarda def ko fépp fu yàlla sopp mu doon fu mu gërëm hmm? yàlla nee na yow de doo lolu nga def yàlla daldi yaatal amalu saalix boobu jëlee ci kuréelu góor ñi dugal ko ci kuréelu jigéen ñi mu ne aw unsa moo xam ku jigéen ki moo def lu baax yow sama jigéen ju baax yow sama tànt ju baax ji yow sama yaay ju baax ji yàlla nee na seen kuréelu soxna yu sell ñi képp ku ci def lu baax ah yàlla nee na doo ko rëccu moo tax mbaax daal amul góor amul jigéen képp ku ci mun a def defal war yàlla neena ci kuréelu góoru yàlla ñi képp ku ci def lu baax déglu dama lay waaj a fay mu daldi yaatal affaire bi partager ko dugal ko ci kuréelu soxna yu baax ñi soxna ñu sell ñi yéen it déglu leen buur yàlla nee na képp ku def lu baax ci kuréelu soxna yu sell ñi fekk ku góor ki bu mu ko doon def wa huwa muminun ku gëm yàlla la ku wéetal yàlla la ku wóolu yàlla la ku topp ndigli yàlla la fekk tamit ci kuréelu soxna yi képp ku ci doon def lu baax wa huwa muminun fekk moom mu di aji gëm yàlla ci wéetal yàlla bañ a yàlla dara bañ a tàbbil ci jëf ju baax jooju ngistal boo ko doon def yow ku góor ki nekkuloo di snap sa bopp nekkuloo di video sa bopp dugaluloo ko tiktok dugaluloo ko ci xarale yu yànj yi ngir nit ñi gis ne yow yaa doon def lii yaa doon dimbali way néew ju doole ñi yaa doon defar jàkka ji yaa doon jënd mokket beeg satala yeeg basan yi di ko yóbbu si jàkka ji defoo ci lenn yàlla mi la ko yombalal moom rekk nga sóor ci jëf jooju bu ko yàlla yëgee mu xam ko mu gis ko doy na bu ko waa réseaux sociaux yi xamuñu loolu sax muy li gën waa réseaux sociaux yi ñu bañ koo xam ñu bañ kaa gis sax mooy la la gënal képp ku sellal jëfum ju baax ji sellal wi nga doyloo yàlla gis na ko yàlla yëg na ko ngay doyloo loolu rekk képp waa réseau sociaux yi seen yoon bu ci nekk képp ku sellal jëfam anam wi muy góor walla di jigéen te fekk bu mu ko doon def ku wéetal yàlla la bokkaalewul yàlla dara moo tax mu ne waxuwa fekk moom mooy góor ba doon def jëf ji yiw mu'minun ku gëm yàlla la ku wéetal yàlla la bokkaalewul yàlla dara te ngistal nekkul ci jëfam jooju mu doon jëf fekk aw unsa ku jigéen ba doon def jëf ju yiw boobu ko daan jëf wa huwa fekk moom muminun da di aji yàlla wiital na yàlla ci nguuram bokalewul yàlla ak lenn ci dara ngistal dañ na ci jëfam ju sellu jooju sàmm na jëfam ju sellu jooju bi ngistal ak déggital snap whatsapp vidéo dara bokkul ci jëfam jooju mu doon jëf mu sellal ko li wajhillah ngir jëmm yàlla dong nga tax mu sellal jëfam jooju yàlla nee na képp ku jëf-jëf ju baax mu di góor walla di jigéen fekk bu mu ko doon def da di gëm yàlla wéetal yàlla bokkaalewul yàlla ak lenn bokkaalewul yàlla ak dara mu sellal jëfam jooju mu sàmm jëfam ju baax jooju ci anam bañ leen wax ni yàlla nee na kooku lañ koy fay nañ leen bokk déglu borom bi nee na fala nuxiyannahu xayaatan tayyibatan kooku la ñuy dundal dund bu tey dund ñoŋ dund bu baax dund bu neex fii ci àddina ëllëg keroog bés pénc bu dajeg man yàlla wala najziyannahum ajrahum kooku la ñuy fay peyor bi nga xamante ne day nekk bi ahsani ma kaanu yaamaluun la gën a rafet ci peyoor la gën rafet lañ doon def peyoor ba ñuy fay ñooñu ñooñu sellal seen jëf yooyu seen jëf ju baax ñooñu ñu sellal ko ngistal bokk ci déggital bokk ci ñu sellal ko ngir jëmm yàlla dong yàlla nee na ñooñu la ñuy fii ci àddina dund dund bu teey te dagan bu ñu dund bu teey nag mënuñu ko décortiquer mënuñu ko expliquer di ko détailler ci waxtu su néew bi ñu jagleel ni waaye bu dee yàlla neena na dinañ ko dundal dund bu teey kooku moo nara dund dund bu teey ndax yàlla moo bind lu teey moo ñu gën a xam lu teey bu dee yàlla nee na kooku la ñuy dundal dund bu teey te dagan te moo bind lu dagan moo bind dund bu teey kon bu dee yàlla nee na képp ku jëf-jëf ju baax te ba mu ko doon jëf dakaa sellal ngir yàlla moo xam ku góor la moo xam ku jigéen la te jamono bu mu ko doon def da di aji gëm yàlla yàlla nee na kooku lañuy dundal dund bu teey waaw ndigam yàlla moo bind lu teey moo ñu ko gën a xam bu dee dañu ne kooku de xel si nañ kaa dundal dund bu teey te dagan fii ci àddina kon bàyyil sa boppam mu dundal la dund bu teey mu wërsëgal la nga dund dund bu teey te dagan keroog bis pinc mu daldi la ci yokkal wala najziyannahum xels nañ kaa fay dinañ ka fay ajrahum peyoro bi nga xamante ne moo gën bi ahsani ma kaanu imaginel yàlla fay la peyoro bi nga xamante ne moo gën moo ëpp moo gën a rëy lu baax la nga nekkoon di def waaw masalan yàlla fay la peyor bi nga xamante ne jif ju baax ba nga doon jëf wóor na la ne du liya tax nga nekkee nekkin bi waaw noonu ngay déggee aaya bi peyor bala yàlla di fay mooy ëpp mooy ëpp dayoo lu baax la nga nekkoon di jëf waaw noonu la ñuy déggee maanaa aaya bi moo tax mu ne wala naxum kooku la ñuy fay ajrahum peyor bi nga xamante ne mooy doon ten peyor te bi ahsani ma kaanu yaamaluun peyor bu gën peyor bu ëpp dayo peyor bu ëpp maana peyor bu féete kaw lañu ñu nekkoon di jëf ci lu baax kon mbokk yi képp koo xamante ne yàlla tabaraka wa wóor sagal na la lu toll ni ngay mën a jëf-jëf ju baax nanga ka sellal waaw nanga ka sellal ndax sart bi mooy wa huwa muminun nga doon ki gëm yàlla wéetal yàlla bañ a yàlla ak dara bañ a yàlla ak lenn dëggtal bu mu bokk ci sa jëf ju baax jooju ngistal bu mu bokk ci sa jëf ju baax jooju ndax jamono ji ñu toll nii nag ah nañ leen ko waxti dund waaye bokk na ci liy màbb jëfu doomu aadama walla bokk na ci luy naxsaayal jëfu kii jëf-jëf ju baax nga di ko wane ci réseaux nga di ko wane ci internet nga di ko wane ci yenn platforme yi nga xamante ne nit ñi dinañ ko gis xanaa nga sellal sa yéene waaw sellal sa yéene ne wane bi may wane ni wonewuma ko ngir gistal wonewuma ko ngir déggatal dama kaa wone pour tasaare lu baax pour ñu mel ni man ñu am lu toll ni la ma am ñoomit ñu taxawee taxawaay bi ni mel walla ñu nekkee ni na ma nekkee ñu xam lu toll ni la ma xam ñoomit ñu daldi taxawee taxawaay bu mel ni nama ma taxawee bu dee loolu moo li lal sa yéene amaana jëf jooju du doon jëf juy nax saay waaye bu fekkente ne loolu lalul sa yéene la tax nga placé ko ci internet bi wala ci réseaux sociaux lu dul gis leen ma maa fi mel nii maa fi nekkee nii fii laa demoon nii fa nekkee su ko defee nañ leen moytu loolu day naax saayal jëf ju baax day détruire jëf ju baax ndax yàlla lépp lu ngistal nekk rek yàlla bokk ci mbokk yi yàlla ñu yàlla may dégg ak topp lii la leen réew mi FM 97 dégtal ci waxtaanu fajar bi bés ni ki tey ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi ñu war a joxe xibaar ñu ngi ni taxaw nasalullah an yaxfada bilaadana min alfitan maa dahara min haw ma batan allahuma ya rabbi aminna fi awtaanina wa aslih aimmatana wa ulata umuurina baaraka allahu lii wa lakum fi alqur'ani alazim wa nafa'ani allahu wa iyaakum bima fihi min alayati wa dikri alhakim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu